maanaam Macky Sall mooy manipuler justice mm-hmm. Macky Sall bu daanoo rek mm-hmm. justice beneen teguwaat ci yoon bu keneen ñëwee mm-hmm. te xam nga man dama jàpp ne keneen day ñëw te du bokk ci ñoom man loolu laa gëm kon su su fekkonte na ñoom dañoo àtte ne Ousmane Sonko ko dañ koo daan définitive duutu mën a doon ci président da nga naan seen bëgg-bëgg lañ wax waaye kay doonaat président moom yàllaa ko xam su boobaa nag xam nga loolu ab luwaa la buñ buñ àtte muy luwaa bu dëng bu bon ñu teg ngir lan di galgal ay nit ngir xam ne kat kooka daal jub te ñoom dañoo dëng xam nañ ne Ousmane Sonko jubam gi rek mhm. moo tax ñu bañ mu wuutu leen mhm. waaye bu amoon buñ xamoon Ousmane Sonko ne ñoom la mel mhm. su boobaa duñ bañ mu wuutu leen waaye dañoo xam ne moo leen gën te moo gën a jub bu ko defee nag loolaa tax bëgguñu mu wuutu leen waaye gis nga nit daal même Henri Siré Ba bu ne woon Ousmane Sonko daan liñ ko àtt lépp dëgg la mënatu a doon candidat su boobaa moom bëgg-bëggam la wax te itam bu boobaa ñam koy wax it gëmuñu ko ndax sénégalais gis nga yonente bi alayhi salatu wasalam daf ne mhm. nit du dañ di fen di fen di fen ba bu waxe deug sax waxam deug gogay ay fen lañ koy japp mhm. wa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar mhm. gis nga bo xole waa APR li len dal moy moy moy li nga xamne mom la yonante bi alayhi salatu wasalam wax ñom dañoo tam wax lu deug tam wax lu deug tam wax lu deug ba buñ waxe deug sax nit ñi weddi ko moo tax naan Ousmane Sonko dafa am ay day manam dafa am febaru xelak yooyu yëpp automatiquement rek nit ñi nee nañ leen li ngeen wax lu dëgg moo tax ñu naan dañuy wër ñu ay di leen jéem a métital di leen jéem a jàpp ak yu kenn xamul mm-hmm. parce que ñoom ñoo tàmm wax lu du dëgg Antoine gis nga ko ñàkk a wax lu du dëgg da koo tàmm ba mujj nañ ko jëlee foofa ndax xam nañ ne li yàqu lépp ci moom la bàyyi ko mm-hmm. ana ana ana kii keneen ki ki ne eh, Ismaïla Madior Fall moom i daa tàmm wax lu du dëgg ba bu waxee dëgg sax mm-hmm. ci ci ci justice kenn du ko gëm moo tax jëlee nañ ko fa ndax ñaar ñooñu ñooy ñi dàq wax lu du dëgg ci nguuru Macky Sall gannaaw ba seen jir wéyee ginnaaw loolu lépp nag uh-huh. ñoom bu ñu àtte woon ne Ousmane Sonko daan nañ ko Sénégalais danañ xam ne li ñu ko daan du dëgg parce que Ousmane Sonko amul benn daan boo xam ne tegu na ci kawam bu définitif mm-hmm. parce que amul lenn loo xam ne ci la ko yoon bi war a topp mm-hmm. nee naa la Macky Sall mooy toppante Ousmane Sonko mais yoonu réew mi toppante wu ak Ousmane Sonko mm-hmm. léegi na daa am saay-saay yu taxaw nag di ko ca jàppale looloo tax Ousmane Sonko di dund coono yi muy dund waaye bu fekkonte ne mbir mi dañ koo teg ci ay règlement rek teg ko ci Euh, ay ay ay loi mhm. su boobaa Ousmane Sonko fee mu ne du fa ne mhm. kon nag Aly Aly Ciré bu fekkente ne moom daa ñemewu dossier bi dafa waroon na wéyal la ah, la koy wéyal parce que ke exemple la joxe mhm. saaba si fay exemple la joxe ci moroomi gisam yëpp ndax bu fekkente ne Macky Sall dañ ne kat fépp fu mu jaar ci justice dañ koy defal lam bëgg mu ñëw am justice bu ko kale si justice bi daa waroon a siggiwaat su ko defee ñu dem ca seenaa seenaa tamit daal di dëggal la saaba si fay wax mhm. kon yaakaar naa arisira ba ba mu ñëwee itam daa waroon a dëggal loola mu wéy mhm. waaye wërta wane ak ragal bay jël mbir mi bu ko delluwaat ci ëttu attakaay bi ko gën a suufe mhm. Ousmane Sonko nag dëkkul Dakar arisira ba dafa bu yoole ay droit parce que Ousmane Sonko Casamance la dëkk sigi coor ga mu dëkk nag foofa lañ ko war a atte atte nañ ko ba jox ko dëgg ba ñëwee ci seenaa Sénat wéyal loola donte déjà moom ay bukki bukki woddoo dérubé ñoo fa ne ndax lañ leen defloo rek la ñuy def su fekkente ne ñooñu bañ na ban dem ci Sénat ñu xam ne Sénat ma ngay bëgg a jël mm-hmm. décret pour jox Ousmane Sonko fiisam mm-hmm. Macky Sall xëy dàqandoo douze personne yoo fa nekkoon lépp loolu lu waa nanguwu ko mm-hmm. waaye déggoo ñi jàngi woon droit kenn waxu ci. dégg nañ sax am na ci koo xam ne mandat bi jeexul woon. mais ñoom seen mandat ci woon. maanaam dàqandoo douze personnes sax moo jaaduwut. xam nga bu moom bu ñu ko layalee daanaka duuru ndiir kan mandaam daa jeexoon. léegi su mandaam jeexee lu teewoon ñu jëlee ko fa. pourtant Doudou Ndir de la Macky Sall bëggoon ma nga ca woon daana ko defal li mu bëgg yëpp ndax élection législative yi passé mhm. maanaam procès verbal yi nga xam ne moom lañ jëlee ca côté Matam ba ko dee ci Fall bëggee xool mhm. maanaam Doudou Ndour moo nekkoon seex ba daal lànk ne ko doo ko fi xoole mhm. dafa lànk ne ko doo ko fi wala Ali Ba mii moo bañoon ne ko doo ko fi waaye Doudou Ndir la Macky Sall bëggoon ci moom Sénat la nekkoon ban ñëwee ñoom ñoo ñoo invalider eh, liste eh, Ousmane Sonko ñoom kon la Macky Sall bëggoon maa ko koy defal léegi nag dem na ba ca cappaandaw ga Macky Sall ne man bokkatuma moo xam ne Macky Sall yorutu dara mhm. te retraite na bu yàgg nag mhm. waaye ñàkk gi Macky Sall ñàkk yor dara moo tax la mu ko bëggoon a def loo waat mu lànk mhm. Macky Sall daa di mer au lieu mu yem ci moom dàq ko waaye daa far dàq douze personnes yëpp mu xam ne kat li mu bëgg duñ ko ko defal waaw léegi Macky Sall daal kon moom moo nekk ci kaw boppi ñëpp daal lu ko neex sañ na koo def te kenn sañu koo corriger léegi ña jàngi woon droit lan moo té ñoom ñu mën a def ensemble benn yoon mhm. dénoncé lii mhm. mais ñaawtee bii di wéy gis nga ensemble euh, kii Sénat bee nga xam ne dàq na douze personnes ya fa ne mhm. gis nga boo ëllëgee suuf bi mën naa xëy xëy ne day dàqandoo ñëpp donte sax loi mayewut loolu ndax nee nañ juge yi déplacé nga leen mën a def boo leen dee teg euh, ay ay daan mais mënu leen a dàq Macky Sall mën naa xëy dàq lépp te du mujj fenn parce que noonu mu dàq capitaine Touré te mujj fenn te yoon jox capitaine Touré mu dàq ko mujjul fenn mën naa xëy xëy Suisse bu deful lu ko neex mu xëy dàq la te du mujj fenn parce que ñoo seetaan lu ñaaw muy wéy nañ boole seen bopp bu Macky Sall defee lu dul noonu ñu ne ko déet arrêté mbir mi kat ak si wut fii parce que lii du sa droit lii mooy sa droit yem ci lii droit jàmbur la jox ko ko waaye nag ginnaaw ñu ngi koy seetaan muy def lu ko neex rek ah nañ seetaan rek waaye nag e, jàpp naa ne Macky Sall moom teqalikook moom mooy ay yat moo ko fiy jëlee ndax Macky Sall xamul buur saay na hmm. waaye buur dee na la xam ah hmm. koo xam ne yow lu la neex def a yaag la ah, du koo xam ne fi ne nii gis nga élection yi ñu dégmal bu soobee yàlla bu nu fi yàlla bàyyi jàmm. Hmm. bu fekkente ne Pastef dañoo am keneen ku ko gañe itam bu ko neexee fii lay taxaw lànk a ah, woo voilà naka nga gisee plan bi nga xam ne Ousmane Sonko instant bi daal dina koy teg bi ñuy xaar discours bi nga xam ne lancé woon nañ ko ne dana ko daal di def ginnaaw bi direction pénitentiaire xuma xaw am problème ci loolu euh, bañ Ousmane Sonko mu daal di wax ci noonu nag gis nañu ki nga xam ne moom moo di Sadikh Top génn fésal plan B bu Pastef mu di Bassirou Diomaye fay naka nga gisee loolu wa ilaa itam ba xam ba xam ñoom teeluñu fésal li nga xam ne moom moo di seen plan B. waa Ousmane Sonko amul dara lu ko war a mën a tere wax parce que liñ ko jàppee da dul yoon moo tax. Mm-hmm. su fekkoon dañ koo jàpp ci yoon. su boobaa ñu daal nee ab détenu amul droit du amul droit communiquer. maanaam bu dee dute ni ci yoon waaye bu dee dute ni politique moom mm-hmm. am na sañ-sañu wax mm-hmm. gis nga yoonu réew mi ni ñu ko tëggee mm-hmm. dafa baaxu maanaam gis nga àtte yii ñuy àtte mm. ak lii ñu tëralee justice bi maanaam dañ ko waroon a raxas ba mu set wecc keneen ku ñëw ku fi toog da ko war a raxas ba mu set xool kalaasu enregistré ba mi nga xam ne ay saal bu lañ yàgg a suyee ñu dàq leen ñu jóge fi carrément bu ko defee ñeneen ña nga xam ne kat ay nit la nekk ci biir suuf yi daañu xam ne kat suyee saal buloo moom lii dong lay mujjee mhm. kon daal euh, Ousmane Sonko am na sañ wax ndax jàpp gi ñu ko jàpp moo jaaduwut moo dul yoon mhm. kon am na sañ wax mhm. léegi nag la fekk nga xam ne euh, Ousmane Sonko état bi daf koo ragal mooy ba mu bëgg a wax kenn ku ne ngay cëb tëb di dal di tëb di dal te xamaguñ lan la war a wax waaye kenn ku ci nekk sëw fit nee na tëll ndax jàpp nga ne bu waxee ba pare sa nguur mën naa jeex moo tax seen xel dëlu léegi nag mu des nag euh, bu fekkente ne dañ ne Bassirou Diomaye Faye lañ jiital. Mhm. waaw dégg naa journaliste yi naan mooy plan B déedéet kenn leen na Bassirou Diomaye mooy plan B dañ ne rek. stratégie. naa doon stratégie dañ ne rek nañ parrainel mhm. Bassirou Diomaye waaye kenn néewagul ne. Mhm. mooy mooy kii gis nga boo déggee sax yenn journaliste yi nga xam ne ñu yàgg bañ passif lañ naan ex passif ex passif wax te ñoom xam nañ ne passif mooy doxal seen journal yi. kon yaakaar naa ne ñoom a coxar wuru leen woon a jàpp xanaa xamoo ne boo xoolee nga. Macky Sall doole ji mu am. Mhm. journaliste yi ñoo ko ko may. Mhm. parce que ñaawteef yi muy def. Mhm. xam nga dégg naa sànq nga wax ne. France ñoo wane ne niir bi ñoo ko wane. léegi ñaawteef yi Macky Sall di def journaliste yi dañ cee lànk ne duñ ko wax daanaka boo dee xool ñenn ñi ñu néew ñooy gën di ko wax. muy site internet yeeg yooyu nga xam ne bu fi site internet yi woon sax mu ci